salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk seen tur ak seen sant. naan leen mbégte la saa su ne ànd ak yéen ci seen émission favorite bi nga xamante ne moom moo di euh, seetu bi et oui à partir de 16h 16h15 ba 16h30 dinañ fas yéene ànd ak yéen euh, euh, durant 1h30 histoire de vous donner de la bonne humeur histoire de vous accompagner à passer un agréable après-midi ndax waxtu yi nag surtout rawatina buy taw am tuuti peex neex na rek ngeen toog ci seen biir kër taal nag seen xeetu cuuraay laal seen clim tuuti waaye jàkkaarloog nag télé bi nga xamante ne moom mooy télé bi gën la grande télé. bi di télévision Futur Média mu nekk aussi la première télé digitale ba tax na yéen itam nekk ci yoon yi ak fu mu ci munti doon euh, vous avez votre téléphone vous pouvez trouver vous pouvez nous regarder en direct ci li nga xamante ne moom moo di sunu ay euh, plateforme wala sax ngeen dugg nag euh, ci TFM direct ci Facebook macha allah mbokku téléspectateurs yi di ngeen ñu mën a seetaan waaye également di ngeen mën a dugg aussi ci li nga xamante ne moom moo di IGFM et oui site boobu nag nga xamante ne lépp génn non seulement c'est fiable et vérifié euh, ba tax na maa ngi leen di ko digal yéen ñi nga xamante ne yéen a ay programme mu télévision Futur Média j'en profite aussi pour nuyuwaale yéen ñi nga xamante ne mbokk téléspectateurs yi waxtu bi bu jotee rek yi ngeen di taal seen télé jàkkaarloog ñun ah, ba tax na tey sama nuyoo dama koy jaglale comme d'habitude rek ñi nga xamante ne caabi da leen féete ginnaaw ba tax na waxtu bi ñoom dañuy toog dañuy seetaan dañu bokk ci ñi leen di bungee di leen di dëfal à ce ñu supporter bu baax nattu bi nga xamante ne suñu borom moo leen ko tegal kon nag yal na leen ko yàlla teggil ba ngeen dellu ci li nga xamante ne moom moo di ah, seen waar cette belle réinsertion euh, sociale biñ leen yéene leen dal ndax li ñuy naan kaso dafa metti waaye génnaat pour bokkaat ci société bee gën a jafe ndax regard euh, bi askan wi di am ci yow wala parfois sax euh, sa famille bi nga xamante ne fa nga bokk ñu rejeté la waaye li ñu naan rek nattu la lu mu ci munti doon il n'est jamais trop tard pour changer kon na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax du ñàkk sax euh, son boobu nga xamante ne Youssouma jigéen woyoon na ko pour xale yi du ñàkk bu ci kanamee dinaa ko wër ndax wax jooju daf ci wax wax ju am solo góorgóorlu leen di ñefe góorgóorlu leen di gëm seen bopp sama bopp ci yéen ndax yéen ñëpp ay jàmbaar ngeen kon na gars yi nekk leen ci waar wi bu ma wax ci waar wi ñi nga xamante ne ñoo yor cak-cak lii di menuisier lii di masson képp koo xamante ne daal yaa ngi takk euh, li nga xamante ne moom moo di sa tubéy bu dee jigéen sa lafu sër nekk ci waar wi gëm sa bopp euh, bañ a ragal bañ a xaddi dem leen ci rek tôt ou tard dina mus a baax ndax yàgg naa dégg ni ñu ne xëcc bu daggul euh, dina dikk te gëm naa ne dina dikk incha allah li ñu naan léegi tey naka noonu ba tey rek mbokku téléspectateurs yi je m'en vais euh, nuyu ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi ci hôpitaux yi ewe eh comme ni ñuy bungee ñi nekk ci kaso yi ñenn ñi hôpitaux yi dañuy seetaan léeg-léeg ñu jëlee ci reetaan ndax saa bu fi taxawee wax gars yi dañuy ree ba kekku abaa waxi noppi ba ci sax pap Cheikh ak oustaz ñun tamit léeg ñu may leen tuuti taar ba nga xamante ne dañuy bëggaat nag euh, kontaanaat bëgg defaruwaat génn ci li nga xam xamante moom moo di tawat boobee waaye ñi leen di jàppale nag nee naa leen moom moo di les médecins les aides soignants ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay infirmiers lum ci mun munti doon ovation à vous ndax tamit euh, vous abattez un travail euh, extraordinaire comme ni ma ko tàmm di waxee ndax nit feebar ñëw rek gis la yow mi docteur na nga koy defalee na nga koy tettee wax ak moom rek day baissé li nga xamante ne euh, moom moo di tension ba feebaram wàcc ba mu mën a àndaat rek li nga xamante ne moom moo di sagoom la ca des nag sunu borom la kon nag yàlla nañu yàlla may wér ñun ñëpp li ñuy def rek mbokku téléspectateurs yi nee naa leen émission bi du ko tàmbali te du ma nuyu ginnaaw yéen mbokku téléspectateurs yi bi ma leen nuyoo ñi ma jàkkaar lool ñooñu nag moom laa leen duppee les hommes de l'ombre waxoon naa ko nee naa leen woy kat mu ci munti doon saa yoo toogee war nga leen mën a sàkkal woy ndax ñoom ñooy jàmbaar yi ay xale rek a fi nekk tubar fakalla équipe SSP équipe bu télévision Futurs Médias ñuy def lii xeetu pivoté yi ngeen di gis kii nag Aba moom moo fi nekk taalibi am jom am fulla euh, bëgg li nga xamante ne moom moo di liggéey moom itam ñu ngi koy bigëb du ma fàtte rimka rimka sama rimka bopp bere caay-caay loolu waaye tey nuyoo bi dama koy teg ci sa loxo waajur bu jigéen moom itam yàlla na fi yàgg te wér nee naa leen roon róon nag moom moo di sama bos ndax moom non seulement décoration bu nice boo leen gis da ciy jàpp ba mu baax ak équipe bi mu fi nekkal ñoom Baye Fall Doumbia euh, ñoom Charles euh, gars yi daal ku lim da ngay jóom boni ah, mais en tout cas nee naa leen ba ci sax euh, du mi nga xamante ne moom mooy nettoyer oto bi léeg-léeg war daamar bi jekk ci yàlla na la ko sunu borom may mais du ma fàtte nag ñi nga xamante ne nag ñooy tax ñu duñu gis kooku nag le grand réalisateur Papa Laye big up à toi ca wet ga jigéen ju mën góor kooku nag nee naa leen moom moo di Eva yaayu Karina min ko dégg ngeen ko xanaa doo leen xam kanam gi de waaye tubaar fakal la jàpp leen ni ci kaw nu mu yanjee ci suufit noonu la yanjee euh, yaayu Karina maa ngi koy bëgg bu baax a baax togg mu sëñ Fallou c'est un Tchadien je la l'avais dit ndax c'est une tenue euh, panafricaine euh, boo leen duggee rek lépp loo xamante ne nationalité la rek da ko fi fekk di nga fi fekk ay Ivoirien di nga fi fekk ay Camo Togolais si je m'abuse di nga fi fekk aussi Burkinabé waaye moom mii nekk ci son bi ndax baati di deex ni moom moo di togg bëgg sëñ Fallou tax koy dogmu sëñ Fallou kon nag ñoom laay njëkk bi gépp ak ña nekkee ca régi ba euh, ca TFM ndax ñun nag ñun ñoo mën ëpp doole li ma leen wax sama catu làmmiñ nag sama xaala xii na cosaan laa nekk di rëkk ba muy moom waaye fële la mburu bi du xoyom xoyomee ñoom ñoo koy duuf rek jox ñu signal rek ah yéen ngeen gis ñu ci seen i biir ay télé kon ovation ñoom Fatima ñoom ñoo fa nekk madame Guissé ñoom ñoo fa nekk comme ci munti doon yéen ñëpp ñu ngi leen di bëggam tout de suite dañuy def ma tegal leen benn son waaye bu leen fàtte ni comme d'habitude on aura des invités sànq nag defoon naa benn link ci internet bi nee naa leen ñan mooy santam la ca des nag képp koo xamante ne trouvé na ko à tout moment mun naa defanteeg yow baax baax li ci kanam rawali bët li ñuy def rek tout de suite let's go pour une toute première vidéo le temps que ñuy ñëwaat recevoir ndaanaan bi ñu nar a am tey et puis ñun ñu continuer sunu émission ndax nee naa leen euh, loolu rek moom moo di sama yitte euh, bégal leen yéen mbokku téléspectateurs yi euh, ba tax na damay tàmbali tout le temps Euh, tey damay juutal yëf yi dama ragal ne sax est-ce que du ma dugg fi nga xamante ne rek moom moo di Facebook en direct nee naa leen c'est une télé digitale yaa ngi yor sa téléphone demal ci Facebook defal TF. M boo ko bindee nag en majuscule boo ko bindee en majuscule di nga gis benn petit carré boo xamante ni dafa gris ca biir ñu bind ci TFM waaye la ci gën a neex nag mooy kër biñ ci toftal kër boobu nag boo ci duggee macha allah gis ngeen ko ah, mbokk téléspectateurs yi moom laa leen di won tey nee naa leen en direct boo leen ci duggee rek ngeen xool maa ngi nii di gis sama bopp di dégg sama bopp kon xanaa du télévision Futur Média moo mën moo ëpp doole eh, comme ni ko xale yi di waxee kon nag yéen ñi nga xamante ne eh, njëkk a dugg di dugal ay kër yéen dama leen di bigëb bu baax a baax ah, Ndey Thiam maa ngi lay sargal di la jox sa wàccuwaay ah, Ndioma Gueye maa ngi lay bigëb bu baax a baax ah, di nuyu tamit ki nga xamante ne moom moo di Fatou Mané maa ngi leen di bigëb jongama bi ngeen di wax mbaax bi ngeen di wax taar bi ngeen di wax yéen yëpp mi ngi ci yéen tout de li ma leen di may rek mooy dama leen di may ki nga xamante ne moom moo di Aïda Somb ñu indioyaat somam boobu tout bu ñu ñëwee nag buñ fi dellu see gëm naa ne dina gën a neex let's go you. tey yow la sama tey yow la Pleasure. téléspectateurs, excusez-moi, man moom je suis tellement cash que quand quelque chose ne va pas ça se voit mais au début on le met de côté euh, kontaan nañ rek j'espère que yéen tamit gis ngeen seen bopp ci vidéo yu bare yi nga xamante ne euh, tegal nañ leen ko yéen mbokku téléspectateurs yi wuyu ma nag kaay leen na gis nga tonton Alaaji As tonton tonton dañu nekk ci direct bi waxtaan wax dëgg jëla la Yves sama premier clash ak yow mi ngi nii te dañu nammante loolu nga nekk artiste nag kuli fadrin ci réew mi waaye nag man bu faj jotee dañ koy faj léegi invitation mënu ñëw ak à partir de 16h donte mi ngi taw nga toog ba sa xol sedd man 15h ma quitté sama kër te muy taw ñëw di yàq programme bi nii du ma ko nangu. gëm naa ne nag yaay woykat bi gën a mag ci réew mi waaye tey boo ñëwee question yu grave dinaa la ko posé ñu wàccee waat tension yi ñu tàmbaliwaat tegaat beneen soo ñu defaat ndax bëgguma sénégalais xam sama jikko if ñaa moo ma tooñ dama bëgg nag ngeen dugg loo leen ko xamal rek ci question yu graaw rek gars yi dama bëgg rek ngeen posé ko parce que tey fii dinañ ko yëngal mu nekk nag artiste boo xamante ne nee naa leen yéen sénégalais namoon ngeen ko ndax bu ñuy naan baat bu neex ci Sénégal bokk na ci artiste yoo xamante ne tubaab fakkal la bu nee der nga xamante ne ndaanaan mi ngi fi waaye ana Yves Niang fan la Yves Niang ne lan moo waral mu defoon cette retraite spirituelle loolu yëpp tey dinañ ko waxtaanee ci li nga xamante ne moom moo di seetu bi mbokku téléspectateurs yi avancé que tey euh, moom laa invité euh, baax na comme ni ñu koy waxee rek ndaanaan yooyu nga xamante ne ñi ngi fi nekkoon téye woon nag li nga xamante ne moom moo di musique sénégalaise ba xale yi ndaw yi di root ci ñoom tey wara mun a tari pourquoi parfois ñuy toog di fatu loolu yëpp dinañ ko waxtaanee waaye émission bi duma ma ci wéet mbokku téléspectateurs yi nee naa leen lundi bu jot dama ci ànd ak nag ki nga xamante ne moom moo di mbaaye sama doomu ndey moom itam dafa tëxët donte taw bee ko téye ma ngay def di defaraat pëllalu sërëm ndax fi mu ne nii day xam ni tonton daf ko war a bëgg sër bi bañee dem a côté donc da koy jéem waaye lu mu ci munti doon tout de suite dama leen di tegalaat beneen vidéo le temps que ñuy eggali euh, les arrangements qu'il y euh, comme ça nag ñu commencé émission bi comme ni ñu koy waxee nag à 17h30 dañu war a ndax sunu yeneen nawle dañ fiy toog te comme di wax rek télévision Futurs Médias ab nen la rek boo xamante dañ ko mayonnaise ku ñëw war mun a cap li ñuy def tout de suite ñu tegaatal leen beneen vidéo histoire de permettre Ambaya ma grande sœur d'amour ainsi que Yves Nian moom itam mu ñëw tey nag ñu def mbeeraay boo xamante ne tubaab fakal balaa dara rek yow rëkkal tuuti ma dégg li nga indi nii lan la lii mooy lan moom lii mooy karom kon il faut ñu wutal le micro kon na ngeen wut micro ñu jox ko borom karom bi yow no tudd mais Jombaay a ngi nii yow da nga ma jox Jombaay waykat boobu waaye ana Jombaay waykat moom tam ma nga Canada man daal li ñuy naan euh, bitim réew day suul naan loolu tamit je pense que euh, il faut ñu def loolu en tout cas seetu bi est une émission pour vous jo bu fekkee yaa ngi koy seetaan wala ku ko xam bu fekkee ci évolue tout le temps dans la musique maa ngi lay demander nga defal ñu une très belle vidéo boo xamante ne boo ñu ko yónnee incha allah dinañ ko fi teg pour xool exactement euh, ci lan ngeen nekk nee naa leen fii tey dina xumb ndax marimba man nekk na li nga xamante ne daf may daaneel moom ak tama waaye tey gis naa ni tama ñëwul dafa mel ni guitare ñëw ànd sama tonton bu tëxët bii nu mu tudd moom ba santul Guèye wala Seck ah ah Alaaji Momar Ndoy le grand guitariste moom itam ah, à la plébou donc en tout cas l'équipe est là machallah ah, tout de suite une vidéo pour permettre à Mbaya mu dugg si ainsi que Vieux Niang ñu defal leen nag émission boo xamante ne ce sera juste euh, que du lourd pour vous très chers téléspectateurs na dal ma mën a dem ci lu ma mën a xel te jóg ci yow sama baby love doxalal dama ci woo 那。 macha allah kooku nag moom moo di jaara bu Thiès wax naa leen moom itam di xale boo am jom ah, mi ngi nekk nag ci li nga xamante ne moom moo di ah, voix artistes yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci réew mi moom itam ah, ginnaaw woyam boobu mu woyoon mu neex ma bay bëggee de génneewaat na sucré salé di woy nag ci ngay xamee ne nag xale màgg na ndax gone gi nag dafa dugg ci néegu sëy moo tax léegi yéen ñamaxtaan yi nga xamante ne dañ ko soxla woon ñu ngi koy gis ci moom donc en tout cas fu mu ci nekk daal on lui fait plein de bisous on lui envoie beaucoup nuyuwaale tamit waa Thiès euh, tey rek ñi ngi gis ci benn vidéo euh, ki nga xamante ne moom mu di euh, Bouba Ndour ma nga fa doon doxantu donc kii nag visité loo ko bu baax dëkk bi li nga xamante ne moom moo di maire Thiès ñu koy nuyuwaale bu baax di ko jox wàccuwaayam donc li ñuy def rek mbokku téléspectateurs yi tout suite ñu ànd ki nga xamante ne moom moo di Mbaaya de tout mauve vêtu teg brodé boo xamante ne tubaab fakal la fan yi moom gëm naa ni màggal bi moom nag yow yaa teye brodé yi ngi sama bos ndax sama mbubu màggal yow laa ko tiis mais fi mu ne nii xam naa ne nag yaa ngi bëmax sa monde wallaahu yax si mu ko na naa sànq nga jël sa garde nii ah waa baax na man boo buggee ma yaru ma yaru waaye boo bëggee tamit ma cokkal mel ni yow rek sama yaay ma ngay xaru ak sa yu mbaax yi nga may waxal yëpp yow da nga xamante ne <laughs> yow mii la mbaa yaa ñëw suñu dëj di ñu jaale jaale ñu tegal ko cere baasi mu lekk ba biiram si naan ma madoo te ba pare nag jox ma jaxal bu duñ yàlla la timbe ma ne ko naa mu ne ma foofu amul meew <laughs> dama la bëgg. waale léegi kan moo ne mat leen meew kan moo mat leen meew. la nga ma jaxal moo tax ma baal la li nga jëfe amul benn problème d'accord am problème. <laughs> ya nga ma waxal yu baax yi dégg naa ko yal na la yàlla fay. amiin amiin yaay sama rakk. wallaay. adduna amul solo. loo gis ci li lay mujj. dëgg la waaye netti li bu rafet. dañ ko war di sóoraale. wallaay wallaay ak lu mu mën a doon. Mhm. télé bii ñu nekk. ndeysaan Youssou Ndour a ko moom. Mhm. macha allah. Mm-hmm. teg fi ay rakkam. Mm-hmm. taxataluñ ñu benn yoon. njaga buuba ak birandul mi nga xamante ne mooy mm-hmm. kaawa te yàqu ci dara. donc kon yaatal bi nga ma yaatal. li may wax toujours. na ma ami naa poté téye rek chéri naar bi sama rakk ji. noonu nga ma téye. macha allah kon. il faut que ñu ñu li ñu naan dëbbalante mooy tax ab dog moom acca <laughs> eh, nuyu naa ñëpp ginnaaw bi ma santee yàlla julli ci yonent bi salallaahu alayhi uh-huh. sant sama ñaari waajur ya di leen ñaanal fa ñu jëm gënal leen fi ñu jóge uh-huh. ci barke Seydina Muhammad salallaahu alayhi wa sallam uh-huh. may ñaanal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër yi hôpitaux yi mbedd yi géej gi jéeri ji tali bi jaww ji ma noppi danga ko daan def non def ma affaire bi def ma <laughs> kër yi non Mado kër yi Mado waaw am na ñoo xamante ne daaw. dañoo wér macha allah dara jotu leen. dëgg la tey ñi ngi tëdd ci kër yi wala hôpitaux yi wala mbedd yi. Oh. am ñoo xamante ne daaw. Mm-hmm, daaw jéeg mm-hmm. ñi ngi nekk ak seeni njaboot di def di dindi. tey dem nañu ñibbi ci këru dëgg gi. te tey jii ñoom sawar taxu leen a dem. ñun tayal taxu ñu fee toog. dëgg naa kon moo tax dañ leen war di bàyyi xel. Mm-hmm. kaso yi tàng. torop. maa ngi nuyu commissaire Diallo. ndeysaan Diallo sa soppe. wallaahi ñu nga ca diwaanu Tëngéej. ndeysaan ak fii mbay sama doom. mais dafa am ñoo xam ne. Mm. tey ñi ngi ci kaso yi. ndeysaan def. am ñu deful. Hmm. te ñoom ñëpp ña nga fa bokk ah, tëdd. ah fekk dee du li ñu naan rek dee du jaas waaye eh, dundin tamit du jaas. merci lu sunu borom bind ci sa jë. jërëjëf kon sant yàlla dafa war jaam. dëgg la yàlla na yàlla wéral ñëpp. yàlla bu kenn am problème. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam africaine kiwi nag. sama rakk ji ndiku sàmb ndiku somb doom ji ndeyam gërëm dëgg la ma doo dama dégg ñu ne bërki démb daa am ku doon dóor yaayam salaamun xaw la saaga papaam dañ ko yàq yaayu ndiku sàmb ne ma du tayeef sama doom rafetaay maa bi day fekkante balaa weer a dee mhm. ma ne ko daa mel ni Amina Potek ma doo jaw ba ci yow mu ne sama doom daf maa jëndal or ba ma ne doyal naa ma ne ko ba tey daa mel ni Amina Poté ak ma doo jëw sama rakk yi mu ne ma sama doom jamaa la ma mujjee jëndal muy borom africaine kiwin moo ma jox borode bi ma pare léegi fa laa jëm laay fi mu jox la borode bi ne ma joxal ma ko ay waay waay mbaaye li duma ko laal ay waay africaine kiwin ma chachalem di ko sàmb sama rakk ju gore ji ajaratu di ko sàmb fi ko joxee yàlla na la ko sunu borom remplacé lee tubaar fakàlla li ñu naan télé dafa metti mm-hmm. solo dafa metti mm-hmm. waaye ku yëkkati ci li nga xamante ne moom moo di ñàkkam di dooleem jox la ko te yàlla tax li nga ci séntu yëpp yal na la ko sunu borom may lii yal na doonu ay milliards yoo xamante ne da nga ko jaay ci sa boutique boobu di ko continuer di ko teralee sa waajur bu jigéen waaw comme li ma lay wax rek jëw bu rafet kii dama koy teg nii macha allah àddina di ko gis macha allah di la wax rek jëw ju rafet ji nga xamante ne nga ma jëw foofu mm. ah. ndax ba nga fay toog di laaf yàlla seede na ne seetaanu ma waaye sama nit bu ma jege dëkk ba fi nga xamante ne ah, moom moo di ca ah, London mm. kooku nag moom moo di Laliya di sama mm. magu bopp borom këram di ki nga xamante ne moom moo di ndey saan sii di Jéeme borom la marmiton moom ma woo wax ba sama yaram daw mu ne ma madoo dama bëgg mbaaya waaye gën naa ko bëgg ndax cofeel ak lu baax li mu lay waxal kon loolee nga ma waxal sama mag ji yal na la ko yàlla fay yiw njaboot yàlla sàmm ñu sàmm sunu ànd gi tubaar fakalla macha allah waaye tey nag yéen askanu ngéwél mm. il faut ma cokkaas leen wax leen parce que yi am fii yëpp yow moom tey moom mi ngi may neexal sànq ba tey eh, mais mais u tax géwél yi mm-hmm. dañu tëxët daal waaw noonu la waaw ah dafa décidé def coalition moog Yves Niang lëkkaloo xeex xeex Mado waaye tey naka yow Yves Niang kay toog fii rek yow ñëwal en direct entre parenthèse barki démb yàggul <laughs> waaw nga jàkkaarloog Assou Mbaye ñëw jëflanteeg man. dëgg la. bu la neexoon ne ko géwal la. aussi la jox. dëgg la kooku nga xamante ne loo nekk ma nga ca. Eh, kooku ajaratu nday asu aaj la ñuy woowee yaayam. ndeysaan dëgg la mu teral ma jox la ko nga jox ma ko. yaa ko moom tey bu la neexoon mu bañ la cee fekk. mu ko ci àddina kon defe naa ne mbaa xam nga ne noble pire. dëgg la mooy respecté géwal. barke yonent bi géwal. mbaa xam nga ne géer bu baax. day am géwël. waaw dëgg la te am na géwël yoo xamante ne. waaw xamuñu tàllal loxo. Mhm. xamuñu taxawaalu. Mhm. xamuñu tambaambalu. Mhm. Euh, bétti. mi bàyyi njaay takk. waaw sama doom la. béti mel sama soppe. bu yaayam naawee ma naaw Aram Ndiaye. oh tubaab fakal la macha allah ajaratu jaal cuun. ndeysaan mu a sekk moom la ñuy woowee yaayam. ay waay béti sama doom bi ak cuun moom la ñu tuddee sama yaay. dégg lii kon xam nga ne sa doom la Aram Ndiaye Aram yaat ma. waaw mi ma jox mbubu mi mbubu mi ma soloon keroog gula ba. waaw te ne dina la daggal. dëgg la mooy yaayam ma nga ca France. dégg nga loolu. Euh, ma nga ca États-Unis. waaw waaw waaw moo ma jox mbub mi Aram maa nga États-Unis. Euh, Rama ma nga États-Unis waaw Rama Massar dëgg la ak Thiat mhm. Maguette Thiam waaw waaw léegi kooku ki nga mhm. xamante ne ba maamam bi jur yaayam waaw moo njëkk a jox Ablaye Wade président un million dégg loolu ko oto mooy cundemba yaasin sago ne ko demal nga politique yi waa kooku war naa ñàkk fayda wala mu wayat bi dégg loolu noobul la allah ku mu gënul gënoo ko barki mooy demba yaasin sagoor ak baaba yaasin sagoor alpha mi ci balakoos mi ci ndar mhm. muy tiir ma jigéen mboor ak aali ma jigéen mboor yaayu njëkke njaay maali ngone mi ci yoof dëgg la maali baay manga ak jaxeeli baay manga mhm. anta sigi mi ci yaayu mboor dégg moom laa leen doon wax rek tey nee naa leen plateau bi dana ala dawme ndax li ñuy naan rek euh, ëttum géwél dafa neex te man dama bëgg yooyu macha allah ndax damay bëgg di dégg li nga xamante ne moom moo baax te géwél boo gis ab faris la rawatina nag ñi nga xamante ne mooy géwél yi nga xamante ne dañu yor puso di ñaw sànq yaa ngi koy wax mooy xeet bi nga def rek ndax léeg di nga ànd géwél doo ko naw ndax jikkoom yal na ma yàlla jéggal ak ña ko saña wax waaye géwél ñu baax ñi ñu ngi fi tubaar fakàlla macha allah di ñaw lu ñaaw ñu defar ko bu ñu taxawee ci géew gis na sax seen géer xool nañ ko xam ni sax la nekkoon ca gafaga jeex na waaye ñoom dañuy jël ñëw defaraat ba mu baax tubaar fakàlla ah, kon nag gàcce ngalaama askanu Sénégal moom laay wax waaye teewul dama leen di sànniwaat rek trak naan leen tax géwél yi tëxët mën a tardé bëgg sañse bëgg bëgg <laughs> ba géwél yi tubar fa kàll bëgg nañ sañse yéen internet bi tontu leen ma. tey tey nii laa koy def tey dama koy indi fii muy wax wax ba xolam seen samedi ma indiwaat ko nag forcé ko ah. ne ko na ñëw indiwaat musiciens yi. Ah, parce que Yves Niang àddina dañ ko namoon Yves Niang mi ci taar mi xale yi jigéen ñi ngi koy wax te gis naa ne ndekete boobu ba léegi li mu la lu taar baa ngi fi ba tey ñu ne Yves Niang mi nga xamante ne ci baat mu neex bi macha allah sama catu làmbi nag sama xaala xiina gëm naa ni mi ngi fi ba tey ndax li ñuy naan fi ñu doon fekk fi ndox doon am. xaw ma tepp tepp xaw ma ba tey boo demee fekk fa tepp tepp kon nag bu ci kanamee ñu dégluwaat waaye gëm naa ko waaye daal lu mu ci munti doon c'est un plaisir de le recevoir euh, Yves Niang le beau Yves Niang euh, bëre titre Yves Niang tey sax xam naa dafa sànni ay lunettes ndax léeg-léeg day ñëw sol ay lunettes <laughs> <laughs> ma bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi. acca <laughs> nuyul téléspectateurs yi. waaw salaamaaleykum. maa ngi nuyu waa àdduna yëpp. Mhm. di nuyu waa Sénégal di sawar taxaw TFM. Mhm. ndax chaîne la boo xam ni. di télé boo xam ne macha allah. Mhm. képp ku fi ñëw yokkute nga fi jëlee. dëgg fi jëlee wàññeeku ko rawatina nag nga ñëw toog ay jigéen. Mhm. mel ni Mado. ku ne xam na ko ci mbaaxam. ku ne xam na ko ci yaroom ku ne xam na ko ci teeyam. Mhm. doo ko dégg ci benn détail. ba pare nag mën a teral doomu aadama. ku mën a teral doomu aadama damay dem ci ay programme wala ma toog di seetaan TikTok bi. gis ko bu nekkee ci ay xew. alalam. lu fa nekk da koy joxe. dama ko xam loolu xam naa ko baax li may wax ni du ay caaxaan. mu nekk nit ku baax kon. Mm-hmm. barki dem bi mu invité Assane Mboup. ma seetaan émission bu nice. Mm-hmm. ma ne non ñun artistes yi nga xam ne gëj nañ ñu gis yëpp bu ñu wooyee mm-hmm. Mado dinañu feeñal. waaw incha allah ndax domp sax ci sot la bokk. te dafa am ndaanaan yoo xam ne. a ñu leen bàyyi ñu dee. wallaahi. parce que Sénégal dafa bari ay ndaanaan. te xew fi lay bàyyi talent. xew. siiw fi lay bàyyi talent kon ñi nga xam ne am nañ talent mm-hmm. te ñu nekk dëkk bi marqué fi seen empreinte mm-hmm. dañ leen war a génne ndax am nañ ay fans yoo xam ne ñi ngi toog di leen bëggee mm-hmm. Jordan mi nag tey dina kontaan ndax. wallaay ndax morceau bi may commencé bi may commencé. tëngéej laa jëm. Eh. yow dama waxante ak yow dara damay jàkkaarloog yow rek ñu dem tëngéej. waaw léegi ma teg rek mën naa tëngéej laa jëm du ma wax ak yow dara. waaw acca acca macha allah Mbaye comme ni nga ko gisee rek donc sa frère sa xarit nañu invité bu baaxee rek xanaa ñu bàyyi ko mu déroulé. Mm-hmm. macha allah fexe na ba. lii muy def kenn mënu ko ci waaye fexe na ba lii muy def macha allah euh, dem na ba marqué ci empreinte am ci li may faral di wax li may li li nga xam ne mooy sama slogan dafa naa jom fulla fayda personnalité bu euh, ni xëccoo wurus xam naa ku jël galam doo pexe may sa xarifal bu ku kee yow laay am bu ni xëccoo wurus mada jaw laati jaw ma jaw xoor may dogee yow bu nuy xancoo wurus xam naa ku jël ngalam doo fete may sa xarit Sekk Njaay ak Atumaan Njaay yaram dafa daw. macha allah. macha allah. dafa way ne Mado Jaw mhm. jaw fara mi ci ndeer. jawfara mi ci ndeer ci diine mhm. jawfara mi ci ndeer ci dignité jawfara mi ci ndeer ci doon puso bu ñu nas wëñ fas cat la kon yow lu ñu la way mu neex barki Seydina Muhammad mu ñëwaat ci Demba Yacine Sagor ak Baba Yacine Sagor Alpha mi ci Balakoos mi ci Ndar Yacine Cuun maa ngi ko koy may waaye maa ngi koy may sama yaay Asi Cuun ca Somone oh. sama yaay Asek Cuun yaayu Tamsir Diouf taaw caat ca eh, Mbuur mhm. waaye di koy di ko may sama yaay ajaratu faali cuun yaayu Cécile Ablaye ak mhm. Maguette Mbuub ma ca France sama banquière boobu macha allah kon nag mbokk téléspectateurs yi gis ngeen ko rek ni ma leen ko waxee woon nee naa leen émission boo xamante ne dafa ala daw me kon li ma fi jotoon wax yëpp eh, xam naa ne dañ doon wax rek waaye li ñu naan rek eh, il toujours là eh, mu nekk nag ay kàngam yoo xamante ne je pense que fàtte waru fi am sax ci li nga xamante ne moom moo di ñii poñe woon la musique sénégalaise ñu nekk nag ay jàmbaar tubaarfakàlla ba tey boo duggee ci Google boo tàppee sax lu rafet rek nga ci gis ah, kooku nag tey moom nañ leen indiloon mbokk téléspectateurs yi moom mu di Yves Niang kon nag mbégte la recevoir la tey en direct ci télévision Futur Média waaye première question li ñu naan macha allah baat baa ngi fi mais Yves Yves fan nga nekk fan nga nekk yow waruloo fatu parce que les Sénégalais t'adorent te loo woy noonu la macha allah. waaw jërëjëf jërëjëf ci question boobu. Mm-hmm. xam nga Sénégal moo nekk dëkk boo xam ne nekk fi aar dafa metti dëgg la soo fi nekkee artiste donte boo amee ku la jàppale sax. Mm-hmm. yaay gën a sonn ñu amul ku leen jàppale. dëgg la. parce que boo dee xool tey jii ñi nga xam ne tey jii mhm. ñoom lañ gën a dégg ci musique mhm. boo dee xool chaque jour ñeen ngi TikTok bi di leen yàq ñee leen wax li bu yàggee da ngay découragé nga te musique vraiment euh, mhm. état bi war na gën a jàppale musiciens parce que soo demee bitim réew da ngay gis benn artiste même bu ko droit d'auteur fayee rek dootul na ma dara mais Sénégal da ngay bëgg di euh, fent bëgg a répété bëgg a dem studio enregistré ji comprendre nga bëgg a tëgg soirée def ay publicité xam nga. Mm. yëgal nit ñi tudde nit ñi loolu pour nga def événement taay rek. Mm-hmm. problème bu métti la. Mm-hmm. soo amul ku la jàppale da sonn mais yàlla suturaal nañu ñun mm-hmm. vraiment ñu am ak ñu ñàkk ñu ngi téye parce que ndaanaan du màgget. dëgg la ndaanaan man dama jàpp ne man wax naa ko barki démb ci Oumou Sow bi ma invité. ma ne ko jàpp naa ne man maa ngi doog a commencé aar. parce que artiste du retraité. dëgg la sànq yaa ngi am kattan. yaa ngi loo gën a jëm mag gisoo ay ñu suñu maam Samba Jabara dañu bay sunu gaal te ci junne dëggal ma bësin di Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu mooy beneen troisième bi. Mm-hmm. mooy lan lay xaar pour tournée nationale. Mm-hmm. ak tournée internationale ñetti question yooyu. Mm-hmm. question yooyu question yi am na solo trop. Euh, grand Sorano moom def nañ ko lu bëree bëri bëri. Sénégal ñëpp euh, grand théâtre la ñuy xaar. mais xam nga yàlla dafa dogal ak régime bu bees bi nii. effectivement dëkk bi am na benn changement. boo xam ni vraiment am na. te am na fu artiste bëgg dem te artiste pour mu dem. il faut que mu la jàppale parce que événement il faut kilifa yëpp jàpp ci. dëgg la muy côté opposition côté pouvoir. Mhm. man nag côté pouvoir bi euh, opposition bi fi nekk léegi nii. Mhm. dama fi bëri woon ay xarit. sa que ragal pété day xañe wërsëg. dëgg la vraiment man PDS rek laa jàppale. dëgg fa yàlla bi mu fi jógee ma président Macky. Mhm. Euh, donte suñu président la woon. mais dafa bëri woon ñoo xam dañ nekkoon ci régime boobu. nekkoon samay xarit. rawatina waa Pikine. ak régime bi ñëw nii. Mm-hmm. il faut nga dem ba il faut nga bàyyi dëkk bi stable xam nga nga miinante ñoom. a mm-hmm. événement parce que événement il faut ñëpp jàpp parce que benn lam du yëngu. mais incha daal. yaa ngi ci projet daal xam ni am na. ci ay projet yoo xam ne. mi ngi waaj a ñëw daal waaw li may def nii man li may joué mhm. mhm. a def. Mhm. macha allah maa ngi profité na ay groupe whatsapp yoo ñoom ñëpp ñu ngi suivre moment bi ah, téléphone. ñu ngi leen ci ay waxtaan yu bëri yoo xam daal pour def ay événement la daal. en tout cas yow moom événement boo wootee je pense que dinañ ñëw euh, parce que li ñuy naan la musique moom mooy nourrir amu nit ki euh, la musique musicien bu koy def sax day ànd ak lumière te toi tu la euh, la voix elle est comme ni ma ko waxee macha allah balaa ma lay bàyyiwaat rek ndax tey moom dama bëgg gars yi xam ni que yaa ngi fi Yves moomu ba tey mi ngi fi tubaab tukkal la bëggaat naa la posé waat rek benn question par rapport ak sa jaar-jaar message boo xamante ne tey di nga ko mën a lancer à cette nouvelle génération ndax xale yi ñi ngi di ñëw mais tey boo doon xoolaat sa démb lan nga xam ne tey euh, nekk na euh, loo xamante ne peut-être boo ci waroon defaat en tant que étudiant wala bu doon judduwaat lan la nga xamante ne day jël poussé ko de côté teg ko fa ba conseillé waale ci euh, xale yi comme ça dinañ mun a topp ci sa tànk yooyu. waa xam nga musique dafa nekk carrière bu métti. boo xam ni li nga ci jéggi yëpp. Mhm. des fois soo koy nettali sax danga naan jaru jaru woon sax may dugg ci musique. parce que musique dafa metti mhm. man bi ma njëkkee aw Youssou Ndour Birima ngoone daf ma woo Sodida lañ nekkoon mook buuba mhm. ma ñëw ñu signal ma contrat biñ ma signalee contrat waroon defak ak man album yu bëri yaa ngi dégg ma do bi ma ngoone woowee ak euh, buuba mhm. yóbbu ma signé man contrat jox ma avance bu bëri mais xam nga cat bu reyul semmal yàlla dogal ñu ma joxe avance may fubal sama koñ rek ñu damm ma. salaamun xawla. ñu damm sama tànk gauche bi. allahu ma dem ñu tabax ko tabax bi baaxul. Hmm? tabax bi jàpp tànk ba tànk bi paralysé. Hmm? sama tànk gauche bi. ndeysaan ma dem ak moom deux ans six mois te ci kóor kóor a dugg studio. Hmm. ma dem ak moom deux ans six mois ba Finlande laa ko mujj fajee. Oh. nga xam ne mu nekk ndog-ndog bu bëri. wallaahi yaa ngi dégg mais tereewul bi ma ñibbisee. ku mel ni Papa géwal invité ma ci album moom ma way ci garab bu la suut la may ker mhm. Talla Diagne produire ma benn album bu ñuy wax yaay ju baax noppal doom moo ma siiwal mhm. yaa ngi dégg mais moment boobu sama contrat ak waa Prince Art presque jeex na lekk naa xaalis bi contrat bi jeex na Talla Diagne xëcc na ma def ak man album mhm. comprendre nga mais xëy na su ma ko defoon nag euh, jamono jooju ak waa Prince Art. wala bu doole parce que production yi bokkul. effectivement loolu lépp ay ndog-ndog la. Mhm. mais nag lu waay di lu waay fekkee ba di ko nettali rek. Mhm. santal yàlla. sant yàlla xëy na nii la ko yàlla bëggee. Mhm. mais borom karaw gu ñuul ñàkkul dara. am naa yaakaar ne daal li des sama carrière. vraiment dinaa ko gérer mais artistes yi nañ xam ni. surtout xale yi ndaw yi léegi ba léegi bàyyiwuma sama bopp. dëgg la yàquma sama maa ngi téye sama bopp tuxuma naanuma dugguma ngi toog lu ma yàlla jox ma jël. parce que nii ku ma gis ni xam ne bu may leb dépense di bëriwul lu ma koy leb. wallaay macha allah du dëgg. ma def nag di gërëm sama jabar. ndeysaan daf ma jàppale. tabara saw macha allah def nañ 25 ans de mariage. ndeysaan ku nekk jigéen joo xam mi ngi mi ngi bi mi ngi fi. waaye nag la mu nekk Espagne di ko liggéey bàyyiwuma ci. ndeysaan seetaanuma mi may jàppale barki démb téléphone bi 1 million la indil ma ko. waaw wallaay jëkkër am ah, ko li ñu naan sang des koy toppatoo yàlla na ko ko yàlla fay ci njabootam moom ne amiin <laughs> waay allah loolu daal daal vraiment nañ téye seen mhm. aar kenn du ko saax saaxe dëgg la aar dañ koy tilimal mhm. mais tilimul macha allah boo ci nekkee aar boo mhm. dangaa war a gëm sa bopp set sel am ci fulla fay da bañ cee def daraay wayadi dëgg la mbaa xam nga ne boo ci deful daraay wayadi wala daraay ñàkk fayda teg ko ci yoon fekk nga am sa ñaanu ndey ak sa ñaanu di julli waxtu yu juróom ragal yàlla barke yonent bi loo ci bëgg danga ko ci am dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la aar ñu bëri dañuy tilimal aar waaye aar tilimul mais aar tilimul bala nga ko xam yow yow yow yow artiste bi nga nekk ci aar ba pare di def affaire tilim yow yaay mujj tilim wallaay dëgg la parce que message mooy joxe mooy tey jii boo dee boo boo demee ci benn baar nga nekk waykat nga dem ci baar fekk ñëpp di naan. Hmm. yow waykat bi dañ lay bëgg ba doo jënd dañ lay paye. ndeysaan. taabal joo toog nañ laa paye. waaw waaw. bu yàggee yow ña lay paye yaa leen gën a doon solaar. dëgg la parce que mën nañ laa paye 15 bital nga naan. parce que doo fay dara. dëgg la lépp lu ñuy jaay dañ la koy may. Hmm. moo tax artiste dafa war a xam boppam téye boppam baax a baax. lu salte boo ko dëgg la bu laalal salte rek da ngay mujj yow yow yaay mujj sax raw ñu salte. allah nañ seen bopp rek nañ téye seen bopp mu nekk Boubacar Samb nag sama benn frère mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ci ligne bi. ndeysaan Boubacar Samb ñu ngi koy ziar bu baax a baax. mu nekk nag kàddu yu am solo yoo xamante ne nee naa leen ci gémmiñ gu mu génn bu ci génnee war ngeen cee bàyyi xel bu baax a baax ndax comme ni ma leen ko waxee day ndaanaan te mag te yàgg naa dégg ni ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moom moo la mën a wan ëllëg boo ko duggee naka ngay toogee. kon nag comme ni ngeen ko gisee mbokku téléspectateurs yi nee naa leen tey moom nañu àndal muy ndaanaan et c'est un plaisir nee naa leen baaxkat yaa ngi fi ba tey te moom ci ñu baax ñooñu ci la bokk li ñuy def rek dañu àndaat ak yow duma la bàyyi nga noppalu dama bëggoon ba mhm. yaay ju baax moo noppal doomam dëgg la moom nga bëgg mu kii la ko dama bëgg mu indiwaat ko parce que dëgg la yaay ju baax dafa mhm. noppal doomam mhm. ndax yaay ji baax. Mhm. mooy tax wayu doomam rafet ëllëg. dëgg la yaay ji bon waxuñu ko. dëgg la yaay ji safaan. Mhm. mais doom ju baax mooy noppal ay waajuram ëllëg. moo tax son boobu laa bëgg mu indilaat ñu ko mhm. tegal ñu ko ci table. macha allah ayca ñu ànd ci avec la régie ñu mayaale ñu retour. yes retour tuuti rek. man sama yaay lay ñaan loo en tout cas moom fi mu ne nii yëngal nga internet bi les cœurs euh, fusent de partout ku ci nekk ngi yónnee ay message macha allah kon nag ku mel ni Ramatoulaye Niang Eh, jooma message yi daal bare na kër yi ñi ngi def sax ay pleur naan lii daal eh, yàlla rek ko mun if ñoo fan nga nekkoon if ñoo fan nga nekkoon lii rek moom moo leen di wan rek baax rek a am solo macha allah ah, donc dégg ngeen ko moom tooñkat la Louga Louga Louga <laughs> lii moo ma neex ci moom il a cette touche d'humour qu'il a macha allah tout en restant humble te artiste bu mag la kon na gars yi na ngeen root ci moom ah, ndax moom c'est un exemple ci wàllu musique j'en profite aussi Mbaye pour lancer waale message xam nga nit yi defar ñii di raas déem donc en train de voir que sur le net am na kenn koo xamante ne comme bi ñuy tàmbali man bu ma kontaanee rek damay wax damay tarale euh, gars yi commencé yónnee benn message ku tudd Edouard la di arnaqué nit yi mi ngi woote euh, di naan leen Mado moom ma yebal ci yéen ah, ñu koy yónnee ay 30 000 ak gars yi daal ñu ngi koy signalé depuis sànq donc nag sëñ Edouard génnal ci lii nga ne parce que wax dëgg fa yàlla nguur gu bees bi jub jubal jubanti nañu wax mm. donc pour t'épargner ton numéro c'est le 78 ah la ca topp dama lay jéggal mais mi ngi fees dell ci internet bi képp koo xamante ne woote na ah, ci 78 500 600 xaw ma ñaata 53 euh, yal na ma yàlla jégal 18 07 ah na ngeen moytu parce que vraiment euh, yónniwu ma kenn yabaluñu kenn dañuy ñëw rek di mbeeraay moon ab woykatu naan rek mu ñëw di ñu bégal looloo fi am kon nag faites très attention nga hmm. ci nawet dëgg la bi ngay jógee sa kër yaa ngi bàyyi sa njaboot. wallaay wallaay wallaay. jom rek moo la tax a ñëw tey liggéey si mhm. ndax dawal. Mhm. nawet wóorul yal nañu yàlla dolli sutura. amiin yaa rabbi nga bàyyi lépp ne dama liggéey. wallaay wallaay ndax nag. njagaak yuusoog buuba. Mhm. ñoo la ñoo la jël teg la fi. mais duñ la gën a gore. dëgg la. Ah, moom. la mu xam la def mm-hmm. man léegi bi may dem damay fekk sama waa kër di waaj a yekk añ mm-hmm. ma bàyyi lépp gisuma añ ba wallaay dëgg la génn di wut taxi pour mën a ñëw ba may dugg si maa ngi tooy xepp mm-hmm. kon nag nit bu ñàkkee fayda ak wayadeeg ñàkk gëm boppam jomaay kafu réewul de moom ah, sonko ah, baax na nag kay diif ñaa waxi noppi jom a ñëw fii moom ñi mu àndal ah, kon maa ngi ko doon tooñ naan ko da nga tardé waaye nag tardé wul woon de ndox bee bare rek ak sama tonton li buggi man tonton Ndoye may daaneel waaw tonton Ndoye man nag damay bëgg bu artistes yi ñëwee ndaanaan ni ñu may présenté waale tamit ñi nga xamante ne ñoom la ñuy àndal parce que comme on dit musique lu mu neex neex lu baat ba neex neex ñi ci ginnaaw bu ñu arrangé def musique woykat bi du mën a briller te bërki démb Pape Diouf euh, chéri bébé baas bi muy woote ci émission bi ñu koy sargalaat bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam borom COP 21 nii la def dafa ne euh, que ce sont les musiciens qui font de l'artiste mu nekk roi euh, kàllaama à ces jeunes yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk waa COP 21 xaw ma fan ngeen ne mm. moom mi ngi la payote waaye man Mado maa leen digal ne Yves na ñëw comme 21 parce que man bu fa ñëwee dinaa fa teg samay tànk lu leer laa leen wax. Ah, ah, dinañuy ménageur <laughs> ah, laa lay def léegi wax ji ménageur. <laughs> man daal Prince sama ménageur. bi. waaw ki yor a mën. ban bi man sama mag marimba bi wala gi. Moussa Ngom nekkoon ci coon sekk yar yarwaale. non looy wax ni. Moussa Ngom ma nga Italie oh. mais moo la jàngal affaire bi accompagnement rek laay la bëgg parce que man léegi mbaaya ah, balaa dara sax dama la bëggoon laaj parce que man xam nga lu xew yaa ma koy jàngal donte tere nañ ma naan ma ay fecc ak yooyu danga koy arrêté ndax peut-être euh, boo moytul jabaru kilifa laa nar a nekk dem fi nar a nekk soxna ah, yàlla rek a xam euh, yàlla waa di waa nañ génn waa waa génn doo pëtë yonent bi nit ñuy seetaani mbaaya ñëwal ci bi mais loolu c'est normal mbaaya lii mooy sa liggéey dañuy xàppi eh, mbaaya ñëwal ci bi jàngal lii moo xew léegi Iba ma ko jàng boobu Yves Niang la tudd waaw na nga xam ne bii Yves Niang la tudd tur bopp bi fecckat yu ndaw ñu koy créé mais eh dagg leen di dugal ko TikTok bii Yves Niang la tudd bii ah, dañuy fecc dégg non lii na ma rey donc une question pour Yves comme nee c'est la première télé digitale de ce ñu def dafay génn ci internet bi moo tax ngeen mën a yónnee seen ay message ñu di ko gis donc y a quelqu'un qui me dit est-ce que en ce moment il a un manager qui gère sa gestion et son plan de carrière bu mu juumalee sànq tontu na ci il est dans les projets mais dañ koy bàyyiwaat mu tontu posé waat na beneen question ne pourquoi moom euh, du def ay duo ak jeune artistes yi mm-hmm. loolu tamit question bu pertinente la dinañ ko ko laaj euh, macha allah et puis nee nañ ko si qu'on ne le voit pas dans les soirées ci yeneen artistes yi nga xamante ne euh, ñi ngi def buzz mm-hmm. u tax loolu ñetti question yooyu yaay borom. waaw côté ménagement. Mm-hmm. ngi ci Euh, yàlla dogal na am na ku may liggéeyal ku tudd Boubacar Samb moo doon woote léegi. ok doomu ndey Bougane Gueye. Ah, man ah du Boubacar la planète de déedéet. Ah. la planète kooku sama xarit la. kooku sama mag la moo tax ma njëmm ak ko macha allah moom it mm. maa ngi am ay liggéey yu may liggéey ak moom côté ménagement bi. mi ngi ciy jàpp. mais lépp loo gis luy dox rek jigéen def ci nekk. dëgg la sama soirée yi may tëgg nii macha allah pour l'instant nii. Mhm. Mhm. yàlla dema may mbooloo nit ñi ñëw. macha allah jigéen ñi nekk sama groupe WhatsApp yi. Mhm, ñoo koy activé ñooy activé ñooy woote. kon loo gis ci àdduna jigéen da cee baax. non moo ci ñàkk. ñoom Aïssatou Diop ñoom ko su ma limee. dina juum wala ñu sànni ma xeer parce que macha allah boo xool mat nañ cent macha allah xam nga fu ñu nekk bu la nga dem wallaahi rawatina nag sama jabar muy première chaque soir day taxaw dëggël boppam yow daal tuuroo sow mi gàddoo sa ngoor gi ah sow pour di ma jox xaalis bu bëri barke sëñ Tuubaa Mbàkke di ma dooleel presque moom bu ñuy joué moom mooy fay musiciens yi macha allah di ma jàppale ah, loolu macha allah ngi ci bu fekkee côté duo ak jeune talent yi loolu am na solo. Mhm. parce que ñun biñ ci tollee. Mhm. dañ daan dem ci suñu mag yi Youssou Ndour. Mhm. ay Thione Seck yow Mado bu fekkee xam nga yéen yàgg ngeen dem ci bois bi. dañ daan dem di leen côtoyer ay Alioune Ndeer ay Fallou Dieng vraiment dem. te te yaataloon nañ ñu. xale yu ndaw it macha allah ñu ngi def buzz parce que musique bi ñuy def nice na. te xew na. incha allah te man ku ma ci diwoo rek nga dégg-dëgg. macha allah dégg naa est-ce que kenn ku mel ni waal yi ñoom ñëpp samay rakk lañ. est-ce que kenn mës na ko ci woo ne ko dama bëgg a hmm. diwoo ak yow. non yaakaar amagul. Mhm. mais xam naa ne daal incha allah du ñàkk. Mhm. parce xale yi cër bi ñuy joxe man bi ñu ma jox sa dafa ëpp. ku ci mel ni waale barki démb tabaski bi. Mhm. xar mi ma jox attanu ma ko. aywaay korite noonu xaalis sax ki daf may jox xar. jox ma teraanga bu ñu mhm. dajee maag mom des fois ci yenn endroit yi. Mhm. mu jox ma sama cër jox ma lu bëri. macha allah kooku dafa xam dafa xam gëddu artiste. ñi mu bokkal génération bëri nañ de. mais moom it gàcce nga laa ma ñeneen ñëpp ñu ngi góorgóorlu. mais waale macha allah parce que allah ku lay defal lu baax. da koy wax waale jàmbaar la. dëgg la yeneen xale it ay jàmbaar lañ ndax ñi ngi way Euh, macha allah di def ay teranga mm-hmm. di di di fexe daal ba nit ñi di leen dégg. Mm-hmm. mais ku mel ni Wally la ci ko ñëpp roy mm-hmm. Pape Diouf suma xarit mention spéciale maa ngi koy ziare suma doomu ndey la kooku sama seex la sama jur la barki dem laa génne benn album benn single way atul wallaay dëgg la way ko ci lu rëy mu woo jox ma millions yu bëri. dëgg la man Sénégal gépp samay xarit. macha allah daal Yves Niang daal ku ko gëjoon dégg. Mhm. à part Boubacar Samb sama ménager am naa beneen ménager bu bees muy Mado. mais ku la bëgg a <laughs> mais ku sax benn numéro boo xamante ne comme par exemple tey waa COP man dama bëgg ñu xëcc la. Ah, ku la bëgg jot naka la mun a def mm. par via Facebook ban mm. numéro naka nañu mën a def pour nekk en contact ak Yves Niang. mais léegi bu ñu wooyee Boubacar Samb rek waaye

de ah, d'accord après ñu ah, ah. soxla suñu numéro téléphone. Mhm. man nga woo Mbaye Babacar suñu frère wala nga woo Vieux Touré. 77. 568. 21 36. 568 21 36 moom bu ci mhm. wootee. di nga am Yves nga woote TFM direct laajte Modo. wallaay <laughs> eh, jeex na ngi nuyu waale Prince Ba nee naa leen moom tamit il fait partie de cette émission des questions bien pertinentes il nous accompagne c'est un homme de l'ombre ci ginnaaw la nekkee mais il fait aussi un travail exceptionnel euh, suñu euh, mag ju góor jooju nga xamante ne moom moo ji doomu euh, ji Njaga Mbay daawoon nañ ko recevoir moom itam mi ngi seetaan émission bi Pape Mbay bu ji Njaga Mbay ñi ngi koy ziar di ko jox wàcc waaye mi ngi rafetlu moom moo di émission bi ak képp koo xamante ne daal yaa ngi toog di ñu seetaan en tout cas euh, je suis très contente kontaan nañ daal man moom macha allah euh, tey daal wax dëgg fa yàlla amatuñu lu ñuy wax donc je sais pas au niveau euh, de la régie ñaata temps moo ñu dese pour ñu waajal tàggoo yi wala am na benn occasion tegaat benn son le temps que ñuy ñëwaat soog a tàggoo let's go. jigéen dañ koy teral jigéen dañ koy sagal call jigéen dan koy teral dan koy sagal jigéen dan koy tàkkaloor góor laa lay jigéen dan koy teral jigéen dan koy sagal jigéen dan koy tàkkaloor góor laa teral jamaa production wala événement. teel leen ko jël la dégg de. ndax kii boo leen sàgganee bu leen rëccee. Oh, barke yonent bi di ngeen waaru. bu ma demee Espagne bu ma ñibbee. sama soxna Espagne la sama ak doom de bu ma ñibbee ñu xam lépp dëgg la. baa la wax lii da ngeen ko téye de rëkk ak moom bu muy moom. xam nga ñun sénégalais lan moo ñu yàq. waaw. bu ñu toogee ñu bu ñu toogee génn ñu mm-hmm. ñu ne xewi na. dëgg la. par rapport ak Europe. Mhm. Europe boo xësee ba nekk star. Mhm. toujours star. dëgg la mais Sénégal boo toogee ba gën a too télé. rek ñu dañ naan doonatoo star. moo ma jaaxal ba keroog ñu lay gas di la suul macha allah yal na yow fi lay bàyyi tala merci beaucoup kon daal du du deñ daal macha allah du xew yi ah, ah, kon nag mbokku téléspectateurs yi gis ngeen tey nag vraiment comme ni ñu ko waxee rek c' était un plaisir de le recevoir ah, moom ngeen gis moom moo di Yves Niang comme ni ma leen ko waxee quelqu'un de euh, gigantesque macha allah un grand artiste kon nag projet yi nga xamante ne mi ngi koy dëgmal yëpp yàlla na ko ko yàlla euh, sottilal jàppale ko ci te comme ni mu leen di ko waxee il est en train de faire des soirée privée maa ngi ko koy may bidika publicité boobu. waaw la payotte tous les la <laughs> payotte les mardis mi ngi la payotte. vendredi. ah Mbaye kooku da dem filmer ko boo paree nga ñëw ñu teg ko fii ñu xool. kooku moom dinañ jël ay caméra wu SSP. mardi maa ngi la payotte te bu subaa ci mardi bi waaw suma jigéen suma xarit muy Njilaan Diouf. dëkk Kër Massar day fête anniversaire am foofu. ah kon anniversaire bi fa lañ koy fa lañ koy defee di wax ne sama groupe WhatsApp yi jigéen ñeeg góor ñi ne ko ñëpp oh. ma tuddee tur damay da ba teel tudd kenn bàyyi bàyyi. bu subaa payot ba fa kenn xaj. Mhm. woykat ya fa newoon sax daw nañ bàyyi fa. dégg nga lii <laughs> ah, fu mu jàll rek wàcc fa doom kooku nag moom ngeen gisoon tey ah, mbokk téléspectateurs yi mbégte la woon vraiment ànd ak moom ci li nga xamante ne ah, moom moo di émission émission bi seetu bi nii lay demee nee naa leen dafa nekk une grande émission boo xamante ne ki tax ñu am fit am doole du kenn sunu ay njiit sunu njiit yooye tey mun naa wax euh, Ndiaga Ndour mun naa lim Bouba Ndour mun naa wax Birane Ndour rawatina nag ki nga xamante ne moom moo di Youssou jigéen Ndour ndax ba ñu fi tegee dañu xaalil yoon bi waaye comme ni mu koy waxee euh, digleem bu njëkk mooy yaatal leen yaatal leen te xamante ne aussi ngeen xam ni que télé bi le euh, télé artistes yi la moo tax artiste bu mu ci munti doon boo leen gis ak bi nga xamante ne sax xewagul kenn xamagu ko mbokku téléspectateurs yi tegal leen ko waxtaan ak ñoom waxtaane li nga xamante ne moom moo di seen ay projet ñoom ñi nga xamante ne ñoo fi jiitu ñu lancé ay message j'en profite aussi euh, pour bégalaat sama benn doom boo xamante ne dañ ko fi invité woon mi ngi duppee boppam Sidi Diop numéro 2 bëgg Sidi y a pas longtemps fii nañ ko invité waaye ci mbaaxam ak reconnaissance am mi ngi ñu yónni léegi benn vidéo macha allah euh, di ñu naan ni que dem na ba am duo ak ki nga xamante ne moom moo di Sidi ci boppam ndax yàgg na ko def amu ko waaye ci waxtaan bi ñu fi waxtaan yéeg na kaw seen xam naa dinaa dugal vidéo bi une prochaine fois waaye yàlla na ko yàlla ibbil yoon bi li ma leen di wax rek ngeen bàyyi conseil ci li Macky di wax Yves Niang wax na ko fi bu leen tilimal seen bopp bu leen yàkkamti bu leen gaaw a beew te bu leen am kerse dem jàngi ndax jàng moom mooy tax ngeen nekk professionnel li ñuy naan talent daf fi nekk comme lui il est waaye ba tey boo leen jàngee di ngeen gën a ay mën a ànd mel ne émission bi wéetuñu ci le temps ñuy dem xool vidéo bi nga xamante ne Yves def na ko non Yves dama ko bëgg nitu bitim réew la léeg-léeg mu def tokk sortam dëgg neexul def tenitam bi afro bi mooy cas bi mooy nag dina ñëw waxtaane cas di ñuy waale euh, madame Niang ah sowpula arda borom nag ak yi tabara borom tur bu neex boobu sama xel aussi dem na ci tabara day sama doom di sama rak euh, di sama kóllëre bu yàgg ajaratu dëggeen chimère mu baax mi mi ñuy jooy te noppeeguñu moo ñu boole woon amaana sax maa leen boole woon waaye boobu léegi dara ñaawu ci ah, def na ay at tubaar fakàll 2010 ci la télé bi sosoo macha allah sama catu làmbi nag sama xaala xii na ñi ngi ci 2024 kon ànd bi yàgg na donte gise gi du bare déggante yi du bare waaye li ci xol yi moo am solo ah, maa ngi dégg ni ah, jël na takk nañ ko am na borom kër mu woo ma yëgal ma ko mu nekk lu ma neex moo tax damay gëm ni tey sunu waajur jooju nga xamante ne ñoo ko bokkoon mooy Adja Degen ci meer bu fi nekkoon tey xolam dana sedd te na la ñaanal kon nag tabara yaa xam li nga bëgg ci sa biir néegu sëy boobu yal na la ko sunu borom defal yal na doon sëy yi nga xamante ne dañ ko takk ca aras sunu boroom ñakk la ñàkk li nga xamante ne moom moo di sa sëy boobu làq la fu yàq yeggul waaye nga am ci njaboot ju barkeel ñaan yi bu ma la ko ñaanalee mel na ni tey sunu yaay ji moom moo la ko ñaanal ndax xam naa yéene gi mu amoon ci yow ci loolee kon nag fekkeewul maa ngi fi donte gisewuñu maa ngi la koy ñaanal ci barki laa ilaha illallah kon nag ñu ànd ceeg sali sali mu baax moom jéeg ji du nu wéet du nu rus ndax dana safal sa cin dana ko dooreel waaye la ci gën yaa ko xam moo tax dama lay jox rek sali nga waxaat ma ci lu baax neex ci mis wi hmm. neex ci lakk jën neex ci muusal déggal loolu neex ci fataaya neex ci brochette hmm. waaye neex na ci li nga xamante ne moom mooy dama daa su luxuma la <laughs> dama daa maa yaasa rawatina nag màggal gii di ñëw gaa yi loolu yow kii est-ce que duma ci yow kon mën naa ci def pañe joxe ko taranga waaw da ngay da ngay ci joxe taranga euh, euh, Joda waaw lii nii waaw Sali da ngay ne def ay euh, bitig yu bëri Touba dëgg la Sali ak ci yoonu Touba bi. waaw xadi bu nu wàccee péage bi. ana xadi parce que lii moo war yëngal màggal gi ren. lii moo war yëngal màggal gi kon man dèjà maa ngi leen di commandé pañe bu mag bu fees dell. pañe gi nag dama koy yëgu ci ki nga xamante ne nag moom moo di sama yaay ji di sama xarit. bu ma ko yóbboo benn bi ci soxna Baali Muntaxa. danaa ko yóbbu beneen bi ci ki nga xamante ne moom moo di soxna Muminatu Kebe mu baax mi. tubaar fakal la kon lii saliba dana fa doxantu. ndax ñoom ay mbana mbana mbana mbana mbana nañuy teg ngir bégal jaam ji rawatina nag Touba gi ñu dem ci waawoon day dem Tiwaawan day dem Kaolack day dem appel aussi. day dem Yoof waaw bu demee waaw ca Ndey Fay dana fa dem ah Kaolack dañ koy yóbbu ci soxna su sunu yaay ji a Fat Samb ay eh, waay waay eh, émission bi neex na de lii daal day dem Touba mu ngi noonu ndeysaan kooku mooy chéri Mouhamed Khady Diouf euh, sama doom jooju nekk ca Tëngéej euh, boole ñoo ko waa Sali ñu ngi koy déggee di kontaan ci moom bu baax a baax waaye ndikku Samb sama rakk ji doom ji ndeyam gërëm ma foofu ca marché HLM. macha allah ñëw su ma jógee fii dëgg la foofu laay dem defi ji benn bés dama koy préparé. bu ñu paree fii rek ñu ànd. merci waaw beneen yoon dinañ def loolu. du moo ma jox lii bi waaw moo la jox waaw teranga teranga koy fay. firxe original la la jox firxe la ah, yow tam. kan moo ma sañ a jox ah ah. woo leen jox bu dul firxe seet. waaw kay. ah ma nga foofu ca Rukku Maabo di ko di ba mu nooy macha allah 77. 108. 82 82. Mm-hmm. te mi ngi wàcce yu bees tàq léegi nii. yow dégg lii moom laay def léegi laa laa ah, def leen ne ko maa ngi ñëw jël si fil taxi yi. waaw mi ngi noonu <laughs> léegi nag. Euh, waaw di nuyu euh, mami papa laay. Mm-hmm. Euh, déggal mami papa Gaye. mami papa Gaye ma nga ca diwaanu États-Unis. Mm-hmm. ku jeeg bu ca këram gërëm mhm. ma ni Papa Gueye naa la kontaan ci yow mhm. Fama Ñing ma nga foofu ca diwaanu Cincinnati mhm. kooku mooy chéri Mara Cooya euh, Fall moom it maa ngi koy bëggee euh, di kontaan ci moom bu baax a baax ak Abdou ma nga foofu ca diwaanu États-Unis doomu Xadi Baara Seck bëggee naa di kontaan ci moom bu baax a baax mais fifi sama doom ak ki nga xamante ne moom mooy euh, sama doomu xol Bambi ma nga foofu ca diwaanu Canada ak Papa Lay Cuun bàjjey démb mi ci néegu Yoff soo dekete ci ñaw bi merci beaucoup tagg nga ko. Kébé Diogo Ali sama doom jee ñaw li. waaw eh, Kébé bëgg naa sa jikko de bëgg naa sa ciseau. waaw day ñëw day ñëw dalay daggal if ñaa kontaan naa ci yow doomi buur géwël nga nit day doon noobu mm-hmm. yow nag kilifa bi la bi lay waajal takk fu amiin na la bàyyi ngay fecc ndax lii ngay def ak fecc ànd baya macha allah maa ngi nuyu waale aussi ki nga xamante ne moom moo di euh, euh, euh, am di Moustapha sunu doomu bopp Abdou Khadre Abdou Khadre waaw moom mi ngi bokk ci naaru dara defar manko yi moo ma indi moo ma déposé moom it nee na dafa bëgg a ak ay produit am ah. ñëw gunge si ko dinañ maa ngi lay ziar di kontaan ci yow bu baax a baax sama dar ko bi macha allah ñu ngi koy ziar bu baax a baax naka noonu ba tey tamit ñu ngi nuyu am di am di moom moo jëloon en charge ki nga xamante ne moom moo di ndey euh, ndeysaan euh, kii Sidi Samb numéro 2 euh, maa ngi koy si Sidi Diop <laughs> excusez moi Sidi Samb xam nga dama koy waajowoo sii Sidi dama ko war a woo samedi ba passé maa ngi jotanteeg moom téléphone donc bu ko seetaan sama yaay dina ko ko wax ajaratu dooro ñu ne ko nag euh, daaro euh, na xam ni ko war na ñëw samedi dinaa ko jéem a coaché loolu mënut a ñàkk ne ko en direct rek saa yu bëggee rek teranga àddina bët lundi prochain ñi ngi koy xaar na bare ngalam luy tàkk ndax sama rawaan dafa bëgg loolu luy tàkk euh, macha allah kon ñi ngi koy nuyu am di nee na yaayam dafa bëgg li ma sol maa ngi koy ziyaar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam donc ki nga xamante ne moom moo di message yi dafa bare wallaay ku lim day juum euh, seen soppe la moo leen gën a bëgg moom tamit kontaan na mais mënuma lire vraiment euh, tous les messages maa ngi jéggalu bu baax a baax bare na torop en tout cas on vous remercie moom tamit ñu joxaat ko rek kàddu gi euh, lan ngay tàggoo et puis wala da nga ñuy bëgg a mayaat beneen son moom ngay tàggoo mais wax ko rek fi mu ne nii nga wax ko après nga nga tëjee dara il faut mu jëm ci léegi kii mooy Zombaay Zombaay jarbaatu Zal Seck sama kii bi micro bi. mu baax soo su ma rakk la soo de day aw day tëgg soo booy tëgg. waaw te loolu la ñamalaat. waaw ayca gars yi Karim Ba yëg nga ne ci artiste man de ma gën a neex. Marème waaw lii mooy Dex kii mooy Dex kii mooy Baye Ndiassé. si Baye Ndiassé Sénégal nag fi mu ne moo fi dàq clavier. mais li problème day nelaw moo tardé émission bi. <laughs> bébé bàyyi nelaw bi ayca. <laughs> fi mu ne dañ koo yee moo ñu tardé yàlla xam nga. waaye li neexal na yëf yi nag. mais nag daanaan la. far yoo yaddaake far yoo yaddaake may ma ma wax ko ah, ah, ah, Mado temps yële passé dama la wax ne la waaw lépp lu waay di def te amul filim neexul waaw waaw mais gis nga ni mu ko daanee <laughs> léegi sama papa nag kii moom dama ko bëgg alaaji loo far yoo yaddaake far yoo yaddaake jaw far yo yaddaake ma do jaw far yo yaddaake birimaak may sa teen du jooro yaa moom gaal ke waaw ajar ko jigéen si mar nañu jooy te noppi gunu yow sa yaay je jigéen si meer lañu jooy te noppi gunu

plaisir de le recevoir kooku nag moom moo di Yves Niang ñëpp ñu ko namm boo leen seetaanaatee émission bi daal di ngeen gis euh, ci événement yi nga xamante ne da koy tëgg en tout cas ñu ngi leen di remercier waat yéen ñëpp di souhaiter waat un heureux ménage à Betty Betty chérie Baye Ndiaye kooku euh, sama rakk xool la daf ma nuru de je l'adore maa ngi koy bëgg bu baax a baax waaye Modou Makeup moom itam di sama doom di sama doomu xool nekk ca marché HLM moom itam maa ngi koy souhaiter bu baax Euh, vraiment heureux ménage moo ko euh, njabootam ak képp koo xamante ne daal euh, dugg nga ci buumu sëy ñi ngi leen di ñaanal bu baax a baax mbégte la woon mbokku téléspectateurs yi ànd ak yéen ci li nga xamante ne moom moo di seetu bi ni lay demee valoriser ces jeunes artistes et ces artistes yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon ngir nit yi mun a xam li nga xamante ne moom moo di seen dayo ci réew mi ndax ils abattent un travail exceptionnel merci encore à l'équipe technique bi may àndal saa su ne ñi nekkee au de la télévision ngi leen niveau de la régie yéen ñëpp fa nekk maa ngi leen di bëgg bu baax a baax ici aussi au niveau du Thiossane di remercier waat bu baax suñu DG euh, monsieur Ndiaga Ndour borom SSP moom itam ñu joxaat leen daje incha allah ci beneen émission euh, euh, beneen seetu bi mais en tout cas restez connectés avec les programmes de la télévision Futur Média car le meilleur reste à venir c'est tout de suite